ci ndigalul sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Ahmadou Mokhtar Mbàkke xalif Cheikh Mouhamadou Moustapha al Karim sëriñ Cheikh Mbàkke xalif sëriñ Mbàkke Madina sëriñ Abdourahmane Mbàkke xalif sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma sëriñ Moustapha Mbàkke Mohamed sëriñ Abo Mbàkke xalif Darou Salam sëriñ Cheikh Fall Touba Sam jabootug maam Cheikh Ibrahima Fall Babul Mouridina sëriñ Tako Fall xalif sëriñ Mayoro Fall ak rakkam jëwriñam sëriñ Ahmadou mboolem njabootu sëriñ ma yoro góor ak jigéen mag ak ndaw di leen yëgal bisub siyaar jokk bokk ak ñaanal mag ña te baaxoo ko at mu jot sëriñ abdoulahi fall moussa rahmatullahi alayhi tàmbali woon ko samedi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février 2022 ca Bidiam Mouride région Saint-Louis arrondissement raw commune de Fass Ngom daañu xëy jàng alquranul karim ba def ko addiyey sëriñ Touba ñaanal ci itam sëriñ abdoulahi fall moussa dokkoon jëwriñu sëriñ moustapha sa borom doole ñuy julli bernde 15 heures ca la ñuy def conférence bu mag ba soññent ci bokk akuk taalibe 17 heures njàngum xasida ma ci rajas bu ñu sëlmalee timis sant soññee ñaan yëfi mbooloo ma ñi ngi koy yëgal njabootu xaadimu rasuul njabootu Cheikh Mouhamadou Moustapha Karim sëriñ Ousmane Ngom xalif maam Rawaan Ngom El Ibrahima Diaw maire commune de Fass Ngom Baye Arona Wade ca Bijëm Murid njabootuk El Hadji Awa Gaye ca Goño njabootuk Maam Moussa ca Kayal Bakel ci njiitul Serigne Cheikh Fall njabootug El Hadj Aliou Fall ca Daara Mbos njabootug Mame Diogu Fall ca Bijëm Saloum njabootug El Hadj Mbaye Diagne ca Ndar njabootug Serigne Ndiaga Fall ci njiitul Serigne Dame Fall imaam Cheikh Moussa Fall di jëwriñu comité pilotage su magal gi moo fi indi yëgle bi di bisub ziar bu ñu baaxoo ca Bijëm Murit di ko gis ko nag fas nañ ci yéenee teg xeeru daaray alxuraanul karim lépp lu waay mën a am ci ciment ak fer ak xeer